saa su ngeen di wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si Daaru asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen ziare di leen baalu àq di ko sàkku si yéen boo gisee fii ñu taxaw muy bërëb boo xam ne kenn du ko laaj ñu ngi fii ci tool yi koom di tool yi sëñ Mortala moom sëriñ Fàllu joxoon ko suñu jàmbaar ji sëriñ Mbàkke Mariam ibnu sëriñ Seex di ko ñaanal suñu borom guddoo fanam te wéral ko te kàttanoo ko ak mboolem ay rakkam ak taalibe yëpp. kon sëñ Moustapha ci laaj bu am solo boobu muy leen ci commission de organisation si jataay yi ñu taxaw fii si waañ wi nekk ci saytu ñam yi waaye ginnaaw li jiitu loolu li njëkk ci programme bi mooy bi ndigal li wàccee ànd nañu ab commission ñëw fii si tool yi xool tool yi xayma ba xam ñaata fan dañ ci war a am loolu mooy programme bu njëkk bi ginnaaw bi ñëwee saytu tool yi xam nañ ñaata fan lañu ci waraam ñu tënk ko wax ko sëriñ bi ñu doxal loolu ginnaaw loolu nag tool yi gis na ni nu mu yaatoo ak nu mu séddagoo si ay parti ñu ne ko nañ ko def ay suuf commission si biir liggéey bi muy sous commission ndox ndax mënta ñàkk ndax mbooloo mi si tàngoor wi ñu nekk dañuy sayt dañuy soxlawu saa su ne rek am ndox moo tax tamit commission bi nga xam ne mooy yor wàllum gasoil bi ak oto yi jox nañu ñaari oto ñu ñu fal ay sous commission ndox boobu yabal si ay membre ngir ñu saytu lu mel noonu ñëpp xam na ne café ay murit daa baaxoo naan kafe fal na ci ab sous commission tamit mën nañoo wax ne waxtu wu ne day baaxoo di séddale ay café ngir nit ñi ndax kenn ko ne ak waxtu ngay mën a naan café beneen bi tamit lu jëm ci wàllum sous commission waañ wi mooy lu jëm ci wàllum ñam yëpp rek fal nañ ko ab sous commission ndax fii may waxee yow nii rek ku mel ne Serigne Xaarim Sey Serigne euh, Serigne Serigne Cheikh Sora ak Serigne Bamba Jale ak Serigne moo Gueye ñoom ñoo di si ñoo jiite sous commission waañ boobu kon ñu xam ne ne liggéey bi ci noonu rek la tëddee waaye nag ku xool jataay bii da ngay xam ne ne luñ programme la lool te nekku ni dañoo tëb tëb rek ñëw fi woote nañ si ay jataay woote si ay jataay woo mbooloo mi xamal leen dayoo liggéey bi ak tolluwaay liggéey bi ba kenn ku ne bi ngay ñëw tamit bàyyi nga xel bu baax a baax tolluwaayu liggéey bi waaye nag ku xool jataay bi da nga xam njaboot ko Serigne Darou Assane Ndiaye gi ñëpp ñu ngi ci biir jataay bi fii ñu toll nii ak ku mën a doon kenn mun see xàmmee kii mooy taalibi diw kii mooy taalibi diw Serigne Darou Assane Ndiaye képp moo fi mooy teew ci liggéey bi kon nag loolu mooy teyu liggéey bi mooy taxawaayu liggéey bi waaye di ñaanal Serigne Abdou Khader xalifa Serigne Darou Assane di ko ñaanal suñu borom guddoo fanam te wéral ko te kàttanal ak mboolem ay rakam waaye nag di sant bu baax a baax waa Dër Ndiaye TV muy waa kër Serigne Darou Assane Ndiaye Serigne Moustapha Serigne Moustapha Gueye jiite ko ci taxawaay bu am solo bi ndax ku xool tool yi nga xam ne ne liggéey bi waa communication mënu see ñàkk ndax lépp lu jàll ba ci mbooloo mi ñëw tamit waa communication ñoo ko yor kon wax dëgg yàlla ñu leen sant bu baax baax a baax di leen gërëm di leen wax ne yàlla na suñu borom defal ak ak fanu gudd ànd ak wér ak mucc gu ànd ak xéewal di tax ne liggéey bi lépp loo xam ne def nañ ko ci yàlla nañ ci am fayuk sëriñ bi si barke sëriñ Daara Assane Ndiaye di taxawal foofu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. wa rahmatulahi soo soi naa bi ñu leen nuyoo ziar la tey rafetlu teewaay bi fii wax dëgg yàlla xanaa dañu sox suñu cadre rek mooy fii jëwriñ ji bàyyee muy ci wax ju am solo jooju ci jëmmi programme bi ak wàccaay tool yi ni ñu ci yegse woon ba ni ñu toll fii nga xam ne mooy ci waañ ak mboolem ni ñu ko àndale ak sous commission yi ñu ko àndal yëpp ci liggéey bu am solo bu mucc ayib commission yi boo xooloon toll na ci yaakaar naa toll ci juróomi sous commission yoo xam ne bu mu yor ba waay soxla rek saa boo demee kopp maam bu fëggee jëwriñ wala ko ca topp rek la nga day mën a yemb ci yow nga amee ko na nga ko te doo ci am benn jafe boo xoolee fi ñu toll ni ñi ngi toll ci euh, añ bi dañuy toll ci ngir di ko jéem a xool naka la jéem ko yóbbu ci tool yi jox ko nit ñi ngir ñu mën cee xewlu waaw mbooloo mi fi daje ñëpp fi ne nii suñu xol dafa sedd suñu xol dafa sedd lool ndax tey mënoo xàmmee mënoo xàmmee fii kii fan la bokk wala kii fan la bokkut ñëpp dañu ànd doon nekk benn gëm na kat bi benn la waaw ñoom ñoo ko mën a doxal mu dox buñ taxawee du dox tey fii looloo bi feeñ ñëpp àndandoo doxal liggéey bi gëm na lii seen liggéey la seen wàll la seen lépp la bu doxee ñu dox bu doxul duñ dox tey loolu feeñ fii lenn moo ci des muy oto bi ñëw ñu sëf ko ci oto bi yóbbu ko ci tool bi jox ko mbooloo mi bu noppi waatee ñu wàcc ñëwaat lépp àndaat ak ñoom raxas ko buñ ko raxasee duñ toog dañuy tegaat mbana yi jublu ci reer bi suba ak jàmm fekk de xëy dañu amaat incha allahu da ciy nekkaat ci bi ba fii ñuy yeewi waaw loolu daal laa xam ne laa amul lu may waaw Cheikh Sode mii gis nga ko nii moom nekkoon nekkoon ci moom tamit ginnaaw bi nga xam ne ginnaaw bi ma jiitalee mu nekk sama wet ak mbooloom ñu toppoon ci ginnaawam waaw dëgg kenn di demul mu des waaw mënoon nañ kii kenn koo xam ne dem na amu ci ñëpp ku ci nekk fa nga war a da nga faa liggéey li nga war lépp da nga koo liggéey kon suñu loolu baax ñi ngi sant mbooloo mépp nag sant mbooloo mépp mbooloo association mépp ñu lay sant mun a xàmmee jamaat ay si asan ak jamaatu xayri fii nii fii nii mënoo ko xàmmee ndax lépp benn la te dañoo booloo dañ benn bolok liggéey liggéey bi mu jag te loolu moo di tawfeex te tey looloo fi nekk sant nan bu baax a baax ak ngërëm waaw te tant mënu ta weesu sant suñu xol dafa sedd suñu xol dafa tooy yaakaar naa bu ñu gënee guddal rek suba danañ juum wala boog ñu wax loo xam ne ko wax wax dëgg yàlla kon ñu ngi jaajëfal mbooloo mépp bu baax a baax di sant yow mii wax dëgg yàlla sa taxaw bi am solo bi nga xam ne chaque yaa ngi koy def fu man di nekk yaa ngi ànd ak ñun ci lii dafa interview yu am solo kon loolu macha allah ñu lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf taxawal foofu asalaamaaleykum wa rahmatullahi saa su ngeen ni wërati xibaar bu wóor gaaw ñu saytu ko ba mu leer jëm si wàllub yoonu murit ak lépp luy actualité yi rawat na lu jëm si njabootu sëriñ Daaru Asan Njaay gaaw leen gaaw ngeen abonné si Daaru Njaay TV mooy seen chaîne de référence di leen di indil ay xibaar yu gën yi ngeen itteewu Daaru Njaay TV di leen toppal lépp luy information 24 heures sur 24 gaaw leen gaaw abonné bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre di am lépp saa su ne fii si